nga fa sëddoo an sabilillahi kooku kenn du ko laal waaye bu dee lakk kële nag mën naa am mm, bu dee yàlla may ko àjjana ndéem la ko teree feeñal ngant la ci loolu la ñu bari dëgg sax ne bàyyi Moustapha bi ñuy wax abitaab abilaab abitalib jullit la ndax moom li taxoon ñeme ñu la feeñal ne jullit la da doon bañ ku rey ndax xamoon na ne bu feeñalee xurey sin rek ne ma jàmbu naa leen ànd ak moom ñu boole ko moom na paaji muy wane ne seen diina laa nekk te làq ne bi di wane ne ne bi ne maa la bëgg te maa la gëm ku la na rey rey ma kooku dafa liggéey liggéey politique bu rëy moo tax ñenn ñi gàtt xam-xam amuñu dégg di ko yée di ko di ko joyal ci kéefar waaye jullit le pire ngir aaye boobu tuuse na ko kon nag borom bi comme bu xol bi te it dëgg-dëgg ñu ngi laaj ndax tudda baatu saada tey nit ñi tudda ko ñu dégg ko daf di sart ci liimaan ak lislaam ba bu ñëwulee du sotti wala jusun rek la daf ci di xaaj bu fekkoon sart la ci bu dëggu kon yonent bi du wax bu sprinc yàlla dana génne ku duggoon safara te addana addana addana trois fois la ko takraaru min min misqaala xardalin nekk sa xol ci limaan te jotu la koo wax kooku dina sowe ëllëg yàlla ne na képp ku xolam limaan ne ci bu gën a tuuti gën a tuuti gën a tuuti peppi bàkkaat doo ba doo bel mukk ci safara foog ñu ràmm la ngir sa limaan googu boobu buur ak xeexatan gaa yi naqu la naqaru la defanteel seetal rek weeru koor waa ngi teru kañ la gëj a woor daaw at mi ñaata weer la fukk ak ñaar liibaroon ne na lekk leen siis yi or siis yi mbaa ma duma leen liibaru ci woon waaye lekk leen ons yi ormal benn bi ma baal lu ngeen defoon ci ons yi kii naqarewu la juboon naqarewu la juboon ah bëccëg ñaata waxtu la fukki waxtu ak ñaar juróomi yoon rek la la ci laaj juróom juróomi amu ci génn julli goo xam ne mat na trente minutes nga libéraat boo xëyee door ko ñaar ràkk yi rek du mooyu ko ba une heure et demie jëm deux heures mu ne la fàttaliku ma lu am man la joxaat ma ñeent ma dencal la nga sànni ko ñeent yooyu mu ne demal nga libéré ba cinq heures mu ne la fàttalikul ëllëg nga dóoraat ko quatre mu ne la demal simis nag sonna nga def ko ñett rek yem ci ma dencal la ko ba ëllëg mu wallu la balaa ngaa tëdd nag defal ñeent lii moo ko sa bopp tëdd li ngaa julli yépp ci bëccëg bi soo ko calculer du ëpp dix-sept du ko war a ëpp ku wattuwul ah euh, deux suba quatre tisbaar six quatre euh, trois 4 17 rek la rek nga koy sànni liibar bëccëg bi loo defoon mu baal la ko dencal la njéggal li nga ko jotoon a lekk leew la kii neex na maa ngi laaj sànq xale yi di leen jam naan leen julli yi lan la ñuy yemle nga xam ni tisbaar ëppaliwu ko takkusaan takkusaan ëppaliwu ko timis timis ëppalewu ko suba suppa ëppalewu ko gee ku ko ci xam loo xam ne julli julli julli ñoom ñépp ko yem li waaw góor koo kana Ablaye Touré fatiha ràkk bu ne dina ko am waaye nag ëppalante nañu ko parce que tàkkusaan am na ñeenti fatiha te suba ñaar la am ñeenti fatiha te suba ñaar la am lan la ñu yemle képp ñoom ñëpp ah ah tisbaar ñaari saar képp la am yi ci def fatiha rek la suba ñaari saar la am timis ñaari saar la am gee ñaari saar la am takkusaan ñaari saar la am am déet fukki saar ngay jàng waxtu bés bu ne bés bu ne di nga jàngal ak di nga jàngal yàlla fukki saar di nga jàngal ñaar ci suba jàngal ko ñaar ci tisbaar jàngal ko ñaar ci tàkkusaan jàngal ko ñaar ci timis jàngal ko ñaar ci gee fukki rakk juróom-ñaar di ko ko defal bëccëg bu ne jàngal ko fukki saar ci alxuraanam am na leneen lu ñuy yemle kàbbaru armal ak sëlma yemuñu taaye am ci julli yu ñaari taaye ak yu am benn taaye waaw loolu nga ko di ko defal moo tax dootoo ko defal lu mu gis ci ñaaw téef li yéefar gàntul ko ko dootul ko defal lu mu gis mukk ci lu baax ndax julli dafa foor moo gën a foor ci jaamu yàlla yi yàlla def ci nattu jaam bi lool nattun wu jafeñe jafeñ mbooleem mbindeef nit a ci gën a tedd nit it jëmmam jëpp kanamam jee ci gën a tedd li yàlla bind suufa ci gën a salte mu ne la fabal li gën a tedd ñuuxal ma ko ci li gën a salte nga nangu sa kanam gi ngay dëriñ ci suuf te nit jëmmam jëpp kanamam a ko ci gënal sa kanam gi moo gën a tedd ci sa jëmm ji balaa nga koo xam rek ñu xàcc kurpen jëm ci fu ne ngay joxe pour mu dal fa te moom mu mucc waaw loxo bi ngay def nii pour mu dal ci mbaa nga def nii mbaa nga def nii rien que sowe ko teddam googu nag yàlla ne la dëriñ ko ci suuf mi gën a tedd di nangu moo tax su jóot foor yëngale na te répp d'accord nañ ne bu àddina bi daje woon yëgoo d'accord ci ne bu kenn julli tey kenn bu kenn sujjóot sunu borom dina muñ suba ba jant so bu jën jant soyee te kenn sujjóotul asamaan dina daanu ci suuf jë yii di laal suuf li muy tuuti tuuti mooy ponte yu ko téye siggi gi nit ñi siggi li muy tuuti tuuti mooy cer ah, mba mbaaram asamaan waaye bu xewoon xëyoon d'accord nun ñëpp masriq ba maghrib benn jëlaalu suuf àddina asamaan daanu ci suuf kon nga xamne ne na ci sujjóot ngay gëna a ñu sa borom bo sujjóotee jegeñ nga yalla moo tax téere yi wax nañu ne su ngeen di julli ne bi bu ngeen di julli bu ngeen rukoonee magal leen yalla bu ngeen sujjóotee farlu leen ci seen soxla parce que lepp lu la jafeñ ci yalla ngay def bo sujjóotee ñaan ko lee nga am ko te sujjóot di ñaan yaqul julli yaqul julli farata yaqul julli sunna ñaan gi sa bopp yàqu ko ñaanal keneen yàqul sa julli ñaan mbiri àddina yàqul sa julli ñaan mbiri àllaaxira yàqul sa julli ah waaw mu ngoog eh kon kon borom bi naqariwula defanteel boo defee benn benn benn njuumte mu bind ko benn ñaari malaaka laa yor ñaari malaaka ngeen yor wa inna alaykum la haafizina biina kaatibiina kaatibiina yoo xam ne yëhlamoona maa tafaaloon du ñu buusa du ñu jaraanko soo taxawee nii ma taxawee kenn ci sa ndeyjoor kenn ci sa càmmoñ soo continuer dem ñu wiite ki woon ci ndeyjoor ne ci sa kanam ki woon ci càmmoñ ne ci sa gannaaw boo tëddee kii nekk sa bopp kii nekk say loo wax nag ñu bind ko loo def ñu bind ko daañu bind ba bind on ci ku feebar malaaka mii ci ndeyjoor nag mooy chef de bureau bi kii kay patron ci ordolam lay wéy pour dimbale julli tax yàlla def noonu mënoon naa def kenn ku ne ilif sabab mbaa kii ilif comme kay bind yiw mooy supérieur yi kiy bind safaan bi kii di bind yiw yàlla may na ko xet gu neex ci bakkanam ba boo naree def lu baax te defagoo ko da koy xeeñ su ko xeeñ rek mu commencé bind kii ci càmmoñ bi gin dina ko xool waaye du ñeme ña wax du ne waajaa ngi bind te kii deful dara mais sañu rus bet nga xam ne yàlla baax te moo bari yërmande la nga nar a koy xeeñ rek mu bind ko une fois na tekk di la déglu na soo continuer def ko mu bind ko dix soo ko deful am nga bénéfice yéen a jaxaat muy benn kii nag ci càmmoñ bi dañ ko ilif balaa bind déglu ndigal dara du ko xeeñ nit boo naree càncaay dara du ko xatu danaan yàng rek di xool boo juumee ba def ko it amul droit bind ko day xool waaj mu ne ko muñal ko trois saa ñetti waxtu su fi waxee astafurlaa matu ko su fi doxee bokk matu ko su fi julli jee matu ko su laay laay laay matu ko su demee ci mawlud matu ko bu demee fu ñuy jànge matu ko bu xette lépp jullit matu ko bu ombatee gumba matu ko bu nandalee kumar matu ko soo toogee ba ñetti waxtu yu mat loolu defa la ci dara mu ne ko bind ko benn yoon képp mu bindal la ko benn yoon képp waaw yow ngay sàggan ba sa benn benn ëpp say fukk fukk kon kenn du la mën a defar ah? yal na nu yàlla dimmale dimbale leen sunu borom kat gaa yi taal na safarawaay waay cee def kenn taal na safarawaay waay cee def kenn rawatina nag ku bokk ci xeetu Moustapha nee na ne sa gaa yi day am naa ñoom wute te gis naa ci ñoom jëfin wudul noonu safara gii bi ma koy taal taxu na ñu ngi daw rek jëm ci nag xaaj ji leen ginnaaw loolu suma wërsëg wi la ñuy lekk di fanta keneen ñettel bi ñu may laaj wërsëgu ëlëk te laajuma leen jaamu ko ëllëg fii mu ne top ma kenn subay ëlëk yàlla top fi ñi kenn ci ñu subay ëlëk génne gi rek la wax soo ko avancé bàyyi na la yow nak yaa ngi laaj xat 500 francs pour ginnaaw ëllëg comme tegaguñ ne service ëlëk rek yow nga jëndu xat di laaj 500 francs ginaaw ëlëk ya kenn xamul affaire doom aadama waye yermandem ji ya joju limuy bari bari xetu mustafa ci ëppale ñi ci ëppale it yàlla ñu ci yàlla boole bi jaay rasulillahi tant bi yàlla bu mu dañ dinu tiim ba faaw ngeen di ko yeesal di ko def dërëm bu ci waay ñàkk mbaa coono mbaa mar mbaa jaabante mbaa gan gu tàbbi sa kër yal na la ko yàlla fay sa àjjana mawlud sakkan nag ngëneel li bari na te yaar gisal bool yi ci gox bi yépp ñu àbboon ko yekk ci reeri nabi yi ba ilaa yawmal xiyaam bool booba ñam wuñ ci lekkatee wu mu mën a doon ku ca lekk doo lakk nga gis nag bu subaa ñi delloo ji bool yi delloo ji kawdiir yi delloo ji cumwaar yi ñu nekk fii togg jëm ëllëg am na gune yu juddoogul war na nañoo mën a lekk ci kawdiir yoo xam ne ñu ngi fii te toggoon tey te lu ñu togg te bay laa yomal xam ko ci lekk sa yaram aram sama kile xewal ko benn bis rek ci cim réew jar na ka jar na ka ndéem gëm nañu ne safara bi ñu taala ngee tàkk te dinañu dem àlaxira kon nag ku góorgóorlu ba côté ba nga ne nga di ko fa def euh, euh, ak mu ne benn yoon eh, yàlla yàlla ngi laa ma ne gan te gàmmu gi kat noo tasoon daaw waaye yàlla tasul jamono bu nu jàngee ba génn kenn ku ne fa nga toogoon malaaka toog malaaka ma nag yàlla def koy def bu mu boo ko gisoo defe na yow la da ngeen di nuroo ni yow lay toll tudd saw di dàkkantaloo ci sa ndey ak sa baay sol col gi nga soloon toogoon fi nga toog tey la lan cinq wanweer décembre ban année 64 bu fajaree nu ñibbi malaaka yu continuer ba 5 décembre cinq su ñu ñëwee duggaat ñu continuer bu ñu duggaatul ñoom ñu door a ñibbi malaaka yooyu nag du ñu jóg sali du ñu naani du ñu nelaw du ñu lekk dañuy sàbbaal kenn ku ne fa nga toogoon ka fa toog la mu sàbbaal yaa moom yool boobu loolu génn guddi ku la ci fay loolu dëgg dëgg dëgg kenn mun la jëfante ko te kat yàlla yaa ngee gëmee yi nga gisul ci yi nga gis ba ñu juddoo dañu fekk mbeex mi def mel nii rek dim ndox rek mu ne bu leen yéem mbeex mi ay jën laa def ci biir yu neex ñu ne mënu la nekk yetti gaal fat meeb taat bi ci waaye mool yi ko doon diingat bi ñu teeree maccaat nañu mayee jën géej mu ne ñaay bii ku toog ba cooroon nga fab aslaf ci dugub dem suul ko fa dinaa wàcce ndox mu sell fajal la sa sa tooba yooya saxal ko pepp wu ne dinaa ko def téeméeri pepp ba béykat yi toogee ba cooy roor jéem a diingat yàlla ku ne lekkat nga yóbbu woon waaye bi nawet bi wàcce ku ne abba nga mbaam pour dellu si sa yëf kër gi benn kemba ngeen di suul bu ngeen di ji benn kemba rek benn du doon sax ñaari doom mu def ca ngooñ def ca për fay la ko nag paatu gerte gerte bu nekk ànd ak ñaari doom mbaa gàddal mab ñett xam nga ki fay noonu ci àddina bu fay àllaaxira nga xam ne moo mën a fay de waaw yooyu nga gis ko yow fii te dama koo fenn mu dig la yeneen noo ci amee fii saaka te yooyu nga gis ko fii ah nee la toujours bu ñuy ji eh, ji jiwu jiwu li yi wax moo lay xamal ne yóbbuwoo dara tool yi dañuy wax ne ku enu jiwu du wax du yenneeku ma ne li mu yenne bariwul ku enu lu diis wax baa nga yenneeku tuuti lay yóbbu tuuti topp mu wow ko nga yóbbu nag def ko ci leket gu wow koŋ boole ko gupp bu wow koŋ def ci ileer bu wow koŋ di jeqi suuf su wow koŋ ca ñaay ba na yàlla fii laa bëgg a dundab déwét sa lax koy suuf ñibbisi béykat ñàkkoon na aleelam ba nga jiyee ba mu ngelaw too ba yaraafaloo nga ñàkk sa yëf koo koy fayeeku maam yàllaa fa des nag di xool asamaan seeg teen rek ngay dese ba mu indi niiram bi sotti ko bu ko sottee ne boo ñibbee moo fay wuutu ne picc yi bu leen laal jiwu bi borom daf ma yaakaar te dama tas yaakaar yi ku ma yaakaar léeg-léeg piccee naaw bëgg a caa jëm mu bindu sax ne la yem ci te bàyyi jiw wi borom daf maa doyloo te ku ma doyloo ma wan la ko ne mu jaar yàlla ku ko fa jaar yàlla defanteeg yow béykat amul yii ñetti jikko réyul béykat béykat réyul siisul gëmadiwul yàlla su gëmadi woon yàlla doo am benn njël rek antan koo suul ne mën naa ci am lëf leneen bu réyoon it du futtee ko ngemb di soow ci àll su siisoon day uta pour waaye ca taati garab ga lay añe te ku ko romb mu oola ku rëyul siisu la gëm boo jëfanteeg yàlla bu la fayee nga waaru waaye ni ñu fayee béykat ëpp mu daal na tooba gi bu ko kenn laal xam ngeen ne suuf li ci yàgg yàqu suuf yàq na nit suuf yàq na weñ suuf yàq na ban suuf yàq na piis suuf mënalul jiwu dara maga ci wax maga ko ne yaa na a mën a yàq waaye bu ko yàq xam ngeen ne ni ñu def jiwu ku ko defoon borom jiwu dootul ñibbi si mukk gas ba mu nga suul dëgg ci sa tànk ñibbiwaat bu ko defoon borom jiwu xam sa alal réer la yàlla taw taw ba fekk pepp ca suuf guusal ko ba pepp guus ba newi mu ne ko taj ci xar te du tàggaloo nag ni pepp xate na noseet ci diggi peppoo luy nu roog weñu faa lay ci weexaay oyof a oyof lool am doole ba mën a inu suuf na dangeet boo amee ñetti fan rek nga wëri tooba gone na la maa ngi nga dellu seen xale yi mbéy jot na tuuti nga yóbbu woon bés bu dugub ji ñibbi si ku am mbaam ngeen dëkk di ngeen xulu diw maa ngi koy àbba mbaam xanaa lëf li dootul mbaam rek te kat genn ak la kat nga yóbbu woon ki la faye noonu ci àddina su la ne am naa pay gurée ci àllaaxira soo ko gëmulee doo gor yàlla li muy def wane na ko wane na ko ba ñépp gis ko moo gën a feeñ jant ëpp yoor yoor yow da ngaa sëñ kër di ca kenn képp bant bu daanu yaa pax mu gas yaa koy gas wàq ko soo dee béykat yaay too bi ba mu yàgg nga walbati ku ji ba yàlla boole la ak soxna ngeen ànd bëggante dugal ko ci kër gi ngeen di ñaar su su xaddar mi koo yow moom la mbaa yow boo ootee mu wiyu mbaa moom su rootee fekku la fi ndab li yàgg ci boppam mbaa mu tuur ko ngeen di xëy di wàcc mu xëy moom yàlla rocc ci sa gannaaw loo yëgul dénk ko ndaw soosu di ko wattu fa mu ko dénk ba génn jot mu génnee ko mudiko magal ko màggal ba mu xëy toll ni yow lo diisal mu enu ko ku ko seen defe na yow la bo waxe ñu defe na sa la liggey bu xereñ bobu kañ ci ko wone te ki mu ko roccee ci mom fellul xarul fetul ndax mu ngay ni ñu mandi na mu tollu won mu toftal ci kenen toftal ci kenen dur ñaari sheikh nga doore a koku bu ne le meun na geneen xereñ elek war nga ko ko nangu alhamdulillah ak xelam bu ñuy takk jànk xalaat na dina mës a taw a mbaa mu lay te leeraay jënt bi ku mu juumloo ba jëndul a pétrole daa mës a fanaan ci lëndëm ndax day soy nit ñëpp jënd pétrole nga ne ko matu ko jënd baa ngi fi daa mës a fanaan ci lëndëm baa ngaa daani leer du noonu alaaji papa sax ne tàkkusaan di jëndi pétrole nga naan ñee ñàkk fay ba toog boo wattuwul ma sa fanaan ci lëndëm parce que jant bi day dem te day yóbbuwaale leeram kon nun ñii am na ñu nu fi jiitu woon du noonu am na ñëpp ñu ñuy relever si bu neexee bu naqari kon sunu sax giñ fii sax fexe ba defaraat waale ci dara dara dara dara gënu ko te ne kuy jeex ñu yóbbu la ci luy jeex indi ñu yóbbu la fuy jeex indi la fa yuy jeex sant la nga liggéey lu dul jeex boo waanewul doo arrivé maa ngi koy waxaat kuy jeex sàkk ñu yóbbu la fuy jeex sàkk indil la fa yuy jeex sàkk ne la liggéey fa liggéey bu dul jeex fàww soo waanewul boo wattuwul doo arrivé àddina day jeex yi ci kaw àddina day jeex nit ki ci kaw àddina it di jeex yàlla ne kon lu ngoo fi gaaw gaaw a jóge liggéeyal liggéey goo xam ne daan ci am pay gu dul jeex su borom xelluwul laa ne du arrivé yàlla nu yàlla tette yàlla nu yàlla dimmale yàlla nu yàlla jàppale bi jaay rasulillahi service yàlla yi amu ci benn boo xam ne néew na ci boog boo dal dul gis njëriñam tereem yi néew na ci boo doonul gis ak loroom lu mu ne la ba ko ba ko rek baaxul bëggu ko da la bëggal lu baax lu mu ne la góorgóorlu ci góorgóorlu ci teel a yeewu ñi dul julli sax te bëgg a wërsëg dinañ ko def parce que danañu biddantikat du gudd fan maa ngi lay bëgg a nettali ñetti ci biddantikat du ko dal dara baaxu ci na du gudd fan yàlla ñu ci yàlla musal fan wu gàtt ak bon du bari wërsëg soxla mu tëw a faju yàlla ni ci yàlla musse ma dem taarit du ko yomb kat tar du ko du rafet du bari wërsëg du gudd fa yi ñi ta dara baaxu ci mom bu amul aljana yi baax na yii jar naa teel na mu tudd bokk yu yu xonq yi duñu julli sax ñu tuté ci bidenti begg na ci mak mu ne Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu ba mu nekkee ndar di foytu xam-xam ku daan guddee tëdd la daan na takraaru bindam lu si yàgg yeesal njàppam di naafila am bés mu di ko def ba mu guddi mu ne naa wéer sama wet gi noppal ba mu langaanee di yóotu fenêtre am pour mu ngi jàkkaarloo kër Wéchia wala Sukaay wala Dalmas seen na kër ci kër yu mag yi mu ngi fekk patron baa ngi takk weer yu weex tal ta lamp bi di vérifier carnet yi Sidaaj Malik bëtam ne toq ci moom mu yuux ne moo kii di toxal àddina rek ndee moo mën a ñàkk nelaw ak lalam bu nooy ba man Malik ma bëgg lu ma musal bàmmeel bëgg ndam bés pénc di mu sànni palanteer yooyu yeesalaat njàppam fa la ko fajar fekk بر ادري سجد وقنا دو فرم كوي وي وي تحدم ركن الدين ركن الدين تحدم تحدم هنا تحدم في مشش تهدم وصار الى الجنة شيخ جرو ما واي واي واو كيليفا لا سي موكي موريتي ات مسير مالك فاتو لاكو ديفال مرسيه مرسيه موي دي واي كو موخ مو واخ واخ بوبو نتهدم مبنا mabana daanu na ñu ne moolu daanu mbàkke mu ne rukkunu diini ji ñu koñ ci lislaam ñu fu mu mabbe mu ne unnaa ci man at mu ne monsieur Sy mille trois cent quarante mille neuf woon sin su tooy junne la sin su wow ñetti téeméer la miin ñeen fukk alaaji Maalik bi muy dabi nabi àlaaxira fekk na nabi jiitu ko fa ba am junney at ñetti téeméer ak ñeent fukki at mu door ko faa fekk ahdama mabbana ñu ne lu mabba mu ne rukkunu diini mooy faili te addama unaa laga ame fi masasit ñu ne moo ba mu ne jànjëm fu mu mujj mu ne saara janaati si biir àddina la bàppil góorug murit gu mag moo wayoon way wu rafet woowu góor googu waaye diina ji benn la waay amul xaajee waay su doon laa ilaaha illallaah su doon Muhammad rasulullaah benn la waay murit beeg xaadir beeg tijaan beeg layin beeg ñépp ko bokk a ah, ah, ah, alhaji Idrissa Diop yal na la yàlla yombalal at ñaar téeméer yooyu moo ko joxe eh, eh, eh, galagul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi alaaji amul dara dara dara lu kenn defal yàlla mu mën a yem ci moom njëriñ la dina ko romb romb ku mu jur romb dëkkandoom ah naar mbay waxatee eh, kenn kenn mu tudd bu ma waxatee hadiya dee leen ma gaaw wax déet lu ko may naar bi jël ko de aywa lu ma doon wax yàlla lu mu dina la romb romb koo dëkkal romb koo jur tiyaaba jaag doole ja gisal noddakat yi fu seen baat yem njëggaluk ñoom yem fa ak njëggaluk ku leen dégg déggub nangoo gëm ndax kii nodde day wax dafa wax du dëgg hayya ala salaa hayya ala falaa dañu bëgg nodd li xaama ko gën a jafeñ waaye nodd it yombul allahu akbar allahu akbar bëgguñu baagoogoog raaji nga xëcc ko soo ko xëccee da ngay yàq ndax këbaar mooy firi làmba làmba mu rëy moomu ñuy mbàkk bàkke kon danga nga ne allahu buur yàlla am làmba la boo ne allahu akbar da nga ne yàlla am làmba la kon allahu akbar ngay wax diggante baageeg raagi bu fi defuk liif boo fi defeeg liif rek mu dim làmb yàllam làmba la nag ëpp naa wax ñépp di ci dégg sëdu sëdu baaxul ushadu sëdu mooy gaynde si yëdanaa fa nga jàng yaagi soo ko oyofalee rek mooy firi till maa ngi seedeel nit ñi ne sunu tille gii ñuy wax Mohamed ndawal yàlla la loolu musiba la maa ngi seedeel nit ñi ne sunu sang bii ñuy wax Mohamed ndawal yàlla la nga ne hayya ala salaa ba sa dënn wuyu bul wax ay ala salaa rek ci làmmiñ na dënn bi ñëw boo ne salaa mooy firi njaar hayya mooy kaay leen hayya ala salaa kaay leen ci njaar mi nga wax kon boo ne hayya ala salaa ci julli gi hayya ala salaa kaay ci julli gi loolu lay firi hayya ala falaa bul oyofal salaa mi falaa baaxul falaa mooy firi ñaay bu lëndëm falaa mooy firi mbégte hayya alal falaax kaay ci mbég mi hayya alal falaax kaay ci mbég mi waaye ay alal falaa mooy kaay leen ci ñaay bi ay alal falaa kaay leen ci ñaay bi loolu musiba la nodd moomu nag sentinelle la ci pinc mu ne ndax jamono boo nee ngas di nodd seytaanee daw fekk moo tax ñu ne bari na ku la gën te am nga lu mu amul ndax rubbama yuusudu fi nahri ma la yuusudu fi lbahri te wa xusuusiyati la dafna anin tafadduli ngëneel mënula la dàq jagle toujours borom kër am surgo bu am lu mu am toujours nag borom kër ci biir këram biir kilif téefam mu ilifaale ku am lu mu amul mbaa ku mën lu mu mënul ci ñi mu ilif moo tax nag jagle kilif téef ga mënu la dàq ngëneel lu tax ñu roof ko ku mu ilif te amu ko gisal rek noot ni ko julli gën a foore te noot am na lu julli amul julli boo ngeen di liqaam bay taxaw rek iblis roof di wax naan ñaari rakk nga am ak benn nga am ak jotulaa taaya waxula woon faatiya di la jax-jaxal rek di la jax-jaxal rek ngaa indi jëme su jóot boo ne ŋaas nodd mu ne ba xër ñett fekk arrêté wootu taxaw nga gis nag ngëneel li nodda am nga gis nag ngëneel li nga xam ne noonu la ko julli gën a foore te nodda am lu mu amul kon yëf yi dafa sew yàlla daf ko roof fa sew nodd gànnaay la gàllaaj la sentinelle la it ci réew ci ruurkat boobu ñuy wax saytaane yàlla na nu yàlla taxawu taxawu leen yal na nu yàlla dimmale dimmale leen nu góorgóorlu bu baax yàlla amu fi lu dul diinaam bi amul lu dul jaamam bi kooku ko bàyyil xel mu bàyyi la xel askuruni askurkum askuru lii wala takufruni fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma bi ngeen di mën ma fàttaliku leen du leen tëlee di ngeen tëlee nag fàttaliku leen ma ci seenug wér ma fàttaliku leen ci wérati wérati dina ñëw fàttaliku leen mu ci seen am ma fàttaliku leen bu ngeen ñàkkee ñàkkaa ngi ñëw fàttaliku leen ma ci seen dund ma fàttaliku leen ci seen dee dee dina ñëw uskuruuni uskurukum waskuru lii wala takfuruuni billaahi ku ko bàyyil xel yëfam yii mun la koo jaar fu mu gis mukk mukk muk mukk ci tooñ ba mu yëg ko ndax yëfam yi ëpp na sa jaar sa tooñ bi moom daal ak yëg la bëgg l'islam yëkk la bëgg bu la sawarte tax nga def tisbaar juróom benni rakk doo am julli bu tayalit tax nga def timis ñaari rakk doo am julli